asalaamaaleykum euh, monde bi yëpp Imam Moustapha Gueye moo ngi nii toog këram donc ñi wax ni dafa génn àdduna yëpp wax ñu dëgg ay sos la quoi ay sos la ay wax yu yàqu la ay wax yu bon la mais Imam Moustapha Gueye moo ngi nii toog di woote téléphone ah. donc képp ku nekk loolu ñu yàlla ko yàlla bàyyi fii suñu kanam mu ñuy ñaanal dañoo toog rek ci internet bi daal di gis nag ñu ne rek El Hadji Moustapha Guèye nekk imam dafa rek ñàkk bakkanam sax ñu bari di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yeneen ci site internet yi daal ko bind ñu toog ab di rek waa këram vidéo di wone nag El Hadji Moustapha moom moomee ñu tàggee dara jotu ko te it mi ngi sant yàlla bu baax a baax kon nag ñu koy ñaanal mu gën a rek gudd fan ngir yombalal leen seen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 ay wax yu yàqu la ay wax yu bon la mais Imam Moustapha Gueye moo ngi nii toog di woote téléphone ah. donc képp ku nekk moom mii yal ko yàlla bàyyi fii suñu kanam mu ñuy ñaanal. dañoo toog rekk ci internet bi daal di gis nag ñu ne rek El Hadj Moustapha nekk imam dafa rekk ñàkk bakkanam ba sax ñu bari di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yeneen ci site internet yi daaj ko bind ñu toog ab di rekk waa a def vidéo di wone nag El Hadj Moustapha Guèye ne moom moomee ñu tàggee dara jotu ko te it mi ngi sant yàlla bu baax a baax kon nag ñu koy ñaanal mu gën rekk gudd fan.